mbokk yi ñu ngi ci école 9A comme ni ñu demee woon ci école 7A dem ci école Elimane noonu la ñu daw si waatee ñëw uyu si appel bi nga xamante ni moom la ñu situa euh, citoyen yi population bi nga xamante ne moom mooy voté fii ci école 9A woowee ñu ngi xamal nag am na ay situation yu doy mbokk yi du maa leen koy nettali dañuy bàyyi nit ñi ñoom seen jëmu bopp ñu expliqué ñu situation bi na la demee kaa la ñu dem ñu xool la la gaa xalaat ci situation bi. situation école neuf avril ah dañuy ñaan yàlla rek ñëw si jàmm ak salaam rek voté si jàmm ak salaam boo voté si jàmm ak salaam ku nekk ñu ngi sa kër rek ñaan si yàlla yàlla ku mu jox ndam rek ñu xam ne moom la ko yàlla jox. damaa ñëw pour sànni sama carte nag. sànni nga sa carte ba pare. nag ah. lan maa ngi soog a ñëw nag. maa ngi soog a ñëw maa ngi am naa yaakaar nag naa sànni quoi. gisagoo fi benn jafe-jafe dugg see nag ba léegi gisaguma jafe-jafe ah. jafe-jafe gisaguma ko quoi ñoo ngi ñaan yàlla daal. yàlla na si jàmm ngeen di dis waaw. waaw affaire bi moo xaw na yàgg ne depuis huit ba léegi ñoo ngi fi ah. pratiquement bureau 6 ba ñu commencé presque 10 heures lañ commencé ba léegi mais vote bi dafa yéex waaw moo ngi dem nànk-nànk mais amul benn situation bu xaw a kii no ñoo ngi sant yàlla daal. ah c'est pas xaw ma nag sànq sànq wax nañ problème bulletin quoi nee nañ préfet bi lañ doon xaar mu andi bulletin yi toog nañ fi lu yàgg gisuñu kenn ah. dafa manqué woon quoi dafa manqué woon bureau 6 moo manqué woon xaw ma 16 moo manqué woon. waaw bokkuñu ok. egsi na waaw sant yàlla rek egsi na ñoo ngi voté nànk-nànk moo ngi dem quoi waaw. waaw tranquillement fi moom amul benn boucan amul dara dara dara nañ ñaan mu continuer noonu ba mu jeex journée bi jeex ñi de ku nekk ñibbi quoi sa kër quoi. waaw maa ngi dëkk fii euh, quartier Darou Khoudoss bon je suis notable dans le quartier vote bi waaw quand même il euh, une lenteur ci vote yi parce que y pas la fluidité bon affaire dafay ah ah maanaam kii oh, euh, comme par exemple man maa ngi daan voté numéro 6 mais da ñëw doo doo fekk sax lu mat ay 7 personnes waa xatul daal waaw vote bi dafay gaaw quand même naan y la fluidité là mais actuellement c'est un Euh, parce que. ah ah seere parce que bon attente bi dafa yàgg. yaa waaw c'est tellement long daal. dañoo yéex a démarré waaw ya waaw moo tax ma ne waaw ya ya non seulement am na lenteur ci déroulement kii bi vote bi. di yàggal parce que ñoom dañu wax ne euh, yàlla kii la beneen site bi école 5. dañu jaa dañu jaawale dossiers yi foo ak fii ah vraiment loolu nag vraiment erreur boobu administrativement warul am waaw quand même euh, ils ont ils n'ont pas été vigilants manque de vigilance am na ci daal vraiment. quand même léegi quand le euh, le vote se déroule quand même démocratiquement quoi waaw amul benn coow vraiment waaw ñu ngi koy déroulé comme pacifiquement. waaw alhamdulilah rabbi alamin tudd Moussa Fall dëkk fii école neuf sama kër a ngi fii si taatu école bi fii laay voté chaque année waaw at bu jot fii laay voté bon at yi ma fi daan voté ak ren ji uute na uute na uute bu baax a baax parce que parce que man dama gis nii man dama daan génn sama kër 6 heures du matin su ma jullee ba pare su ma ñëwee bureau de vote bi deuxième position laa fi nekk wala troisième position mais 8 heures dina fekk ma voté di génn école bi wala 8 heures 5 cette fois si voté wu ma ba 11 heures moins 9 laay doog a dugg sama bureau de vote j'étais deuxième position ou troisième position 11 heures moins. waaw problème bi mooy ñoom eh, ay erreurs yu bari daal da ci am parce que déjà bulletin yi am na ay bulletins yoo xam ne dañ leen jaxase ñu war a ñëw fii si école bi ñu jël ko yóbbu ko beneen école ñu war a ñëw ci école beneen ñu indi ko fii déjà loolu problème lool léegi président jury bi amoon problème boobu bon yenn bulletin yi bi ñu ko tegee ba pare dafa am ñoo xam ne seen bulletin nekku fa alors léegi ñooñu seen mandataire nekk di casse pour seen bulletin ñëw man assisté problème yu mel noonu ñay gis naa si ñaar yu mel noonu jaabi mais finalement lijjanti nañ ba indi ñooñu seen bulletin teg ko ñu doog a ay 11 heures moins. kenn voté dañ taxawoon dañ taxawoon parce que ñoom seen mandataire dañ bañoon ni duñu du kenn voté te seen bulletin ñëw alors léegi bulletin yi ñëw ba bañ teg ba pare. si la ñu doog a commencé euh, vote yi quoi c' était à vers 11h moins 11 pré pré préfet parce que déjà man gis naa ni matériel yeeg yooyu am na si yoo xam ni si biir guddi gi waroon na ñëw mais dafa dafa des. bon man dama naan constaté man si etu école bi rek laa dëkk dama naan constaté ni chaque veille élection policiers yi fi daan fanaan dañ fi daan fanaan si biir école bi gisuma loolu. bu ñu ñëwee déjà man jusqu'à huit heures huit installé gu ñu defaraguñu seen matériel pour si biir biir classe pour pour kii ko déjà loolu rek ay ay failles la yoo xam ne doo ko mën a wax waaw benn policier laa fi gis moom laa fi gis moo fi ñëwee 6 heures du matin benn policier laa fi gis moom mooy man dama ni bon problème peut-être ñoom dañu am problème effectif man c'est ce kenn laa fi gis depuis suba ba léegi. waaw li ma fi gis mooy moo ñëw ce matin gis naa que euh, électeur tel nañu ñëw. mais rien n'était prêt c'est-à-dire euh, génnewuñu le matériel qu'il faut maanaam mooy carte kii nu mu tuddati euh, papier yi ñu mën a teel a jublu ci woote bi waaw loolu daal constat boobu laa def le matin parce que man maa ngi wootee ci beneen bureau de bu nekk euh, école cinq mais si suis mandataire ici à l'école 9 te wote naa fële ba ñëw fekk fi kenn commencé gul waa li tardé mooy si njëlbeen bu fekkee yu mel ni dafay am li ñu war a def mooy génne papier yi à temps am ñoo xam ne kit à ce que ñu fanaan dans dans les classes ak papier yi xam ne bu ñëwee dañu fekk lépp nekk sur la sur place ñu mën a teel a démarrer parce que ñu xaar ba huit ba bëgg a génne ay papier bëgg ko teg ci seen place ak mu nekk 47 euh, euh, document loolu dafay dafay jafe sama gis-gis. normalement bu fekkee nekk façon course yu fekkee dañuy rawante ñëpp dañu war a ne ci point de départ bu ñu nee yëpp ñëpp daw. mais bu fekkee dañ ne pass de course yi 10 lañu wala 11 lañu wala 20 lañu am ñenn ñoo xam dañoo manqué ne wuñ ci aara pour ñu mën a dem bu a départ dañu war a taxaw bañ fas yëpp mat ñu départandoo donc arrêté ba ñëpp xam ne seen bulletin mat na nekk na sur ñu démarré loolu mooy yoon. foo départ moo am bu fekkee ne loolu am na foo départ la am man nag gisuguma constat bi dama dégg ñu koy wax mais fi ma wër yëpp ci classe euh, bureau de vote yi gisuma foo xam ne fi da am na bulletin yu manqué. mais bu fekkee dafa manqué normalement dañ ko war a compléter ba mu mat ñu soog war a mën a démarrer.